على سيدنا محمد الذي تنحل به الأحد وتنفرج به الكرب وتهدى به الحوائج وتنال به الرهائب وحسن الحواتم ويستسى الحمام بوجه الكريم وعلى صفي كل لمحة ونواس بعد كل معلوم لك رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bisimilah ñu dikk ak yéen ci li nga xamante ne bii lu mat a xam la te mat a bàyyi xel muy yoon wi nga xamante ne murit bi ci lay sóobu ci lay sóobu ba ay kiiraay mën a dog ba mën a xam boroomam nga xam ne kenn ku nekk laata dikkam fii ci àdduna dundoon na dund bu yàgg fa yàlla dund boo xamante ne nii xel mënu koo xiyaas kenn mënu ta nekk boon foofu diir bi nu mu toll muy nekk boo xamante ne nekk ruux la woon ruux dëkkaale woon ak boroomam nekkoon koo xam ne nii ku doon dund ci leer ay boroom ci ay leeru boroomam la doon dund ci xam boroomam nga xam ne lu ñuy wax ak jaxalu ak réer boobu moom nekku ci woon defee yàlla bi nga xam ne na mën a amal li nga xam ne mooy daaru duniya nga xam ne aadama la njëkk a sàkk ci doomu aadama maanaam suñu maam aadama la njëkk a bind bi mu ko bindee daal di bind xawaa faaru càmmoñ bi nga xam ne ardo bi nekk na lu yàgg yàgg ay jinne dëkkee woon ko te boobu maanaam ruuxu jaam ñi suñu boroom amaloon na leen ndax yow ma lastu awalan bi yàlla ne alastu bi rabbukum ruux yëpp dañ ñëwoon xaaloo bale yàlla di amal di amal di amal ba mu soob ko léegi nag mu ne day amal aadama bi mu amal bi mu amalee aadama daal koy sàkk ci ban daal jël ruuxam jëlee ko aras ga mu nekkoon daadi di koy dugal ci biir jëmm bi mu defee loolu jëmm bi mu ñëwee ci ruux bi mu wàccee ci jëmm jëmm nekk alam bu lëndëm alam bu raglu mu mel ni comme rek nit koo xam ne dañ laa ñëw rek daal lay tàbbal ci euh, àll boo xam ne ay ay ndëgment ak ay till ak ay gayndeek rab yëpp dañ faa daje yow ñu daan ñëw la ñu daan ñëw daal dafay wàcc nga nekk doomu aadama war faa war faa dund nga xam ne daay man da fay nekk ba mu soob yàlla rek mu jëlee la fa yóbbu la feneen léegi nag yow la ñooñuy lekk ñooñu lañuy lekk yow mënoo koo lekk la naan munoo koo naan la ñu dégg munoo koo dégg te nga war a nekk foofu ba loolu yëpp euh, maanaam nga mën koo comprendre di ko jëfandikoo ruux noonu la mel bi ñu ko wàccee ci jëmme jëmm dafa fe dafa perte connaissance bi mu amee woon mais euh, xamoon na boromam démb ndax ruux lu dëkkaale woon ak boromam la xamoon boromam démb xam goo xam ne nii xam gu mu wér la ci boppam xam-xam goo xam ne nii xam gu des la ci moom moo tax bi biñ ko moom doomu aadama ñu koy waaye linsaan kañ la réere boromam bi ruux duggee ci jëmm daal di gëlëm fàtte fa mu nekkoon xëm bu mu xamooli ko xamatul nag naka lay def rek am na lu mu nam mais xamul na lay def ba jot ko xamul na lay def tam ba dellu fa xamutul sax ne yàlla war nañ koo mën a xam waaye faw benn jaam rek bu yàlla baaxee eh, ngay dégg ci làmmiñam mu ne la kat këpp këpp jógal